mbokki jullit yépp mbokki taalibi yépp mboolem waa réew mi ak ñi nekk bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi yëkkati kàddu yi ci ndigalul sëriñ bi ak teewaayam muy nuyu ñëpp di sant ñëpp di fàttali waa réew mi ak waa bitim réew lii nu dëgmal nanu maase xam ne. lu nu am jàmm moko gën ci nun ku amul jàmm doo tala jaamu yàlla fa in khiftum farijalan aw rukbana ku amul jàmm doo tala sa aduna mo waral sunu borom wax ne ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaafatan sunu borom yërëm jàmm ñi rek tax mu yónni seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin adduna ji jàmm fi gën barzaq jàmm fa gën alaxira jàmm fa gën wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa ma yubaasu xayya jàmm nag li koy maye mooy fas ko ci sab xol di ko wax di ko jëf te tey ànd ak nit ñi bëgg jàmm in wi waqul wafaal ولازم تسلمي ورومي العلا مكرما بكلمي بوكونا لي ما يجام دي مويتو اكتون تي جيغلي يالا واخنا تي حديث قدسي يا عبادي اني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وخادنا فمن عفا واصلح فاجره على الله كوباخ كي دانا واخني دي لن مويتو اك توغ تاي مويتو فايو ndax kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ daana wax ne ba ma mosee muñuk tooñ laa noppalu ndax sunu borom damay fayul fay ma bokk yi ku leen woo ci jàmm wuyu leen ko wa in janaxoo li salmi fajnax laha wa tawakkal ala la ku leen woo ci safaan yéen sax leen ci jàmm wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama nit ku ne sàmmule ko yettam diineem bu ko yàq alalam bu ko yàq ab deram bu ko yàq kullul muslimi ala al muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irdu tànn nag yàllaa ko jagoo te yàlla noppi na jaam yi ñoom euh, sàkku ak sabablu rekk mooy seen wàll la yàlla def ba noppi nag jërul ñaawoo sëriñ bi nag ñépp la fi nekkal ku fi dikk dékk ko say loxo mu ñaanal la dénk la digal la ku jàpp ne bokkoo ci ak njabootam umpule nga fa mu ne ak fa mu teg tànkam waajtaayu bis bii nu dëgmal euh, tax na coow li bari ci loolu mu ngi digal ñépp rawatina waa Touba nanu gën a sàmmonte ak wormay dëkk bi yaraat sunuy kàddu fóotaat sunuy jikko nàmmaat sunuy pas-pas sunu diggante ak sëriñ bi soppante yéenante jàmm taxaababu fillahi yaa ixwaani bila taxaasudin wala udwaani inna taxaabuba huwa al imaanu li ahlihi surur wal iqaanu man xabba lil axi alladi yuxibu li nafsihi radi anhu rabbu kon nag waajtaayu bis bi ak jëmmi bis ba ak bis ya ca topp nanu sax ci suuxat jàmm di ko wax di ko jëf rawatina fii fii Tuubaa nanu gëna wormal wormaal sëriñ bi ci dëkkum bi nanu rus sëriñ bi def ko ne ko yàlla def sax ci limu bëgg wa salaamun alaykum yasurukum wa yanfaukum wa la yadurrukum abada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi di sant sant go xamni ne yëmul fenn ndax sen jataay bi amul benn jataay bu ko mëna wecc dara lépp ci defar rekk la lépp ci defar rekk la loolu nag moom la ñu suñu diine sant moom la ñu sëriñ bi sant loolu amuñu leneen lu war a nekk kon nag ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin bi yàlla dogalee jataay bii te mu doon loo xam ne mos a dem ci sama xel waaye nag nekk ci lu sëriñ bi gërëm mos a jóg sama xel kon nag bu yàlla dogalee lii ma fekk fii ci ci sëriñ fi sëriñ bi fekk fii bokk yu demee ni ki yéen di sama bokk di samay bokk di sama bokki taalu bi ngeen mel ni ngeen mel maanaam xam li ngeen war a xam lépp ci wàllu xam-xam borom xam-xam bu jëfe xam-xam kon mel na ne yéen jotaay bi ak seen jéego yi ngeen dox ñu fi ak seen jotaay bi ak wax ji nga xam ne ñëpp ko bokk loolu alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi nga xamee ne sëriñ bi moom faggu na lépp lu moo tax faggu faggu na ko kon lii seen jataay bi jataayu dëgg jataayu defar jataayu liggéey sëriñ Tuubaa kon lii ci pàgguteef sëñ bi maa ngi sant bu baax maa ngi sant suñu bu ñu sëñ bi sant sëñ bi muy suñu lépp tey ëllëg sant di leen gërëm yéen ci seen taxawaay